jaajëfal journaliste yi nga xamante ni ñoo fi ñëw di taataan li fi war a jóge pour tasaare ko ci àddina bi pour askan wi mën koo déglu di jiite sama kàddu ak sama cant jëme ko ci xalifa général mu Sëriñ Muntaxa Basiru di ko ñaal mu yàgg fa te wér di sant Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasul da nuyu président Ablaye Wade mi nga xamante ni mooy njiitu coalition wàllu Sénégal da nuyu président Khalifa Sall mi nga xamante ni mooy président conférence leader coalition yeewi askan wi di nuyu ñi fi nekk ñëpp samay kàddu nag damay ñëw pour sos ko ci ñi nga xamante ni ñooñu jiitu woon ci wax ju am solo ju ñu fi wax pour askan wi ndax ku ne xam na ni réew mi wax dafa jot waaye bu wax jafe tamit jëf dafa jot parce que àgg na foo xamante ni Macky sàll doy na Macky sàll gasi ndax réew moo xam ni da nga koo bëgg yore si dictature yore ko si injustice loolu neex nga bëgg koo def yaakaar naa ne loolu askan wi nga xamante ni ñoo fi nekk waruñu seetaan loolu parce que bu mu seetaanee daf leen a neex kon may wax ni askanu Sénégal ñoom ñi nga xamante ni ñoo tax ñuy sonn ñun ñoom ñi nga xam ñoo tax ñuy daje ñoom ñi nga xam ñoo tax ñu dégg lu nekk askan woowu la ñuy woo ci bis bi nga xamante ni mooy mercredi. te bi nga xam mooy coalition yooyu woote may woo askan wi yëpp xam ni jëfe nag jot na te jëfe war na te jël seen réew jot na bu ñu si àggee ñoom ñëpp ñu maase wuy si woote boobu noonu parce que loolu mooy li nga xamante ni moom lañ warloo ak ñoom moom lañ warloo ak seen bopp di wax ni lii nga xamante ne mooy li am entre coalition wàllu Sénégal ak yeewu askan wi muy loo xamante ni ci àddina kenn mësu ko xalaat kenn mësu ko foog kenn mësu ko yaakaar waaye mbirum yàlla buy ñëw dafay nëbb jaam bi nga xamante ni saay-saay la te bëgg koo yàq kooku moo waral Macky Sall mënu ci woon a accès mënu ko woon a am yàq ba nga xamante ni lii taxaw taxaw na ngir lépp fi war a jëlee war ko fi fagaagal wala gën a risim bi nga xamante ni mooy risimam pour teg fi dëgg teg fi jub teg fi naataange loolu nag askan wi laa si woo ñoom nañu xam ni le 31 juillet bii ñëw mooy bis bi nga xamante ni moom la seen coono war a jeex mooy bis bi nga xamante ni mooy injustice bi leen di teg si la war a jeex mooy bis bi nga xamante si la war a feetu nag réellement seen bis bi nu war a jëlee indépendance pour tàggoog régime Macky Sall ak régime dictateur bi nga xamante ni saay-saay moo ko jiite kon bis boobu jotee. mbooleem askan wi nañu xam ni coalition Yewwi Wallu ñoom ñoo ko wàll ci département yi comme ni ko Déthié waxee leeral gi da ci am solo ba bu ñu ci àggee kenn ku nekk xam na nga war a wote ngir boo bëggee ñu am majorité pour que mën a tegaar Sénégal ci raay bi mën a dindi luwaa yu bon yi nga xamante ni moom la fi Macky Sall indi ci réew mi ngir xañ nit ñi seen i droit ak seen droit muy ko ci mel ni Khalifa Ababacar Sall ak ki nga xamante ni mooy Karim Meïssa Wade ak ñeneen ñi nga xam ñoo fi nekk ñëpp te war see bokk te bokkuñu ci. nii Macky Sall bëgg yore réew mi wërta mën a am ndax ku nekk xam na ni ñun ak ñoom ñoo nekkoon bi muy war a falu daw na fu nekk pour sàkku ndimbal ba ci sama bureau papa wax naa ko ba tàyyi fekk na ma fa pour sàkku ndimbal ngir président Abdoulaye Wade jël ko ni ko de ci waxe mus sa mus opposition même bu mu amee ay jafe-jafe dafa daw dem si alaaji baara fa la ma fekk ak ay jooyeel mu won ñëpp ni àddina bépp xam ni Macky Sall buqe la tapet mosu leen a dégg benn yoon boo xam ni Sénégal ñu ngiy war a jóg pour manifester wu mu nekk ci biir réew mi ñëpp xam na ni Macky Sall tapet la du fekk mukk manifestation ndax ñimewul doole jàmbur la war a utiliser wala moom la bëgg utiliser pour que bëgg koo noter Sénégalais yi te loolu du fi amee kon may wax ni ngis buñ sa àggee askan wi nga xamante ni yéen yéen a tax ñu jóg ñu bàyyi suñu yitte yëpp ngir yéen ngir bëgg leen a jàppale bëgg leen a dimbale ba nga xamante ni dundu seer gi wàññiku na mbay mi jaar na si yoon napp gi nanguwaat nañ seen géej pétrole bi nga xamante ni jaay na ko ñu jëlaat ko jox ko Sénégalais yi gaz bi nga xamante ni fii may waxe yow délégation Sénégal dem na Allemagne pour joxe ko ñu mën ko récupérer waat ndax bërki démb altine si guddi départ nañ pour dem joxe suñu gaas loolu yaakaar naa Sénégalais yi waruñu nangu loolu askan wi waruñu nangu si risque Macky Sall fukki weer ak juróom-ñett yu fi desee mu bëgg jaay suñu ressource jaay suñu ngor jaay suñu dignité ndax lan lu neex français yi te loolu yaakaar naa ni dafa war a doy ku ne xam na ni fi mu dem yóbbu fa boppam comme ni nga ko waxee dafa am fu mu jaar ñu yónni ko mu dem mais bala ngay régler bitim réew war ngaa mën a régler sa réew ak sa gox ndax ku ne xam na ni li mu fi bàyyi war na ko mën a régler li mu bàyyi Afrique war na ko mën a waaye nekk si àll bi di tambaambalu moom moo ko neex te loolu dana fi jógee suñu gën a gaaw incha allah may wax ni comme boo ñëwee département Mbacké di nga xamante ni fa lu ñu nekk la coalition wallu ak yeewi ànd fa. bu ñu ñëwee foofu askan yëpp nañu xam ni coalition wallu Sénégal bu ñu ko watee ci département bi wote nañ Yewwi parce que député yi fa nekk wallu ak Yewwi ñoom ñoo ko seq muy juróomi député bu ñu ko jëlee jël dakaar jël Thiès jël régions yi Ziguinchor ak yeneen régions yi nekk Bambey Diourbel yaakaar naa ne bu ñu ko toppalee ak diaspora bi mooy am nañu majorité Assemblée nationale suñu première nag loi bi nga xamante ne moom la war a njëkk a def mooy bokk na si ñi nga xamante ne dañoo war respecter seen i droit ak seen ak seeni i muy xalifa ak ak Karim ñu mën a fexe maanaam nu ñu mën a participer si élection yi parce que Macky sàll dafa ñëw pour tënkale ci loo xam jaarul si yoon ngir bëgg fee toogaat loolu foofu la ñuy njëkk a def ñaareel bi loi bi nga xamante ni sëriñ si si boppam jox leen ko ndigal ak askan wi muy loi ngóor jigéen bi ñu mën ko indiwaat assemblée pour wate ko ku ne xam ne ne Macky Sall dafay dooleel ngóor jigéen ba barki démb mbaay recevoir ne ki nga xamante ni doomi ngóor jigéen la ba mu ne ko dina financer ay projet kon loolu war nañ ko mën a leeral parce que loolu bëgguñu ko suñu réew dafa yàq jikko yi dafa yàq diina ji kon loolu rek jaakaar naan jar na Sénégalais yi mën a mobiliser waat mën a xeexaat mën a génn xam ne Macky Sall mii nga xam ne moom ngeen dénk seen réew bu ngeen ko joxaatee si maturité mooy dana fi jéem a wutaat troisième ñun dey du fa amee te buy am si suñu bakkan lay njëkk jaar jàll wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen merci l'honorable Abdou Mbacké madame la présidente